di ko dellu di jëlewaat ci téere Serigne Souhaïbou Mbacké boobu ñuy wooye Qurratul Ayni bu wolofal bi te mu nekk ci xetu 123 ak 124 su ko defee mbokk yi suba la àjjuma di dajeeg ñaar fukki fan ak juróom ci aw diggiw tabaski ci atum ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn ci gàdday ga maanaam 1441 hijriya di dajeeg 17 euh, juillet 2020 su ko defee mbokk yi sëriñ bi dafay wax ni ñaar fukki fan ak juróom bokk na ci bis yi nga xam ne baax na nu nga xam ne fàttali na mënees na ko jëfandikoo lu ci mel ni tàmbali ci dara wala ñu fas ci ab sëy wala ñu yeggale ko ci wala ñu xarafal ci ay gone mbaanu wattu ci moom limu ñaar fukk ak juróom bu dee jëmee àjjuma ji nag mbokk yi eh, liñ ci gën a taamu mooy daloo ci ndaxte bis bi rafet na lool kon baax na daloo mbokk yi yal nañu yàlla fayal Serigne Souhaïbou Mbacké rahmatullah alayhi bi jaahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen baal ñu àq ba suba ak jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu